yenn saa yi nga dugg bureau boo xam ne da ngay fekk mu fees dell ak ay document ñu indil ko DG bi pour mu signer ko image boobu nag mooy am guddi àjjuma bu nekk suñu dossier yi ñun ñëpp dañu koy yóbbul yonent bi def ko ci benn papier ngir wan ko yonent bi guddi ajjuma bu nekk ak guddik altine gu nekk li nga def ci diggante bi ajjuma vendredi samedi ba dimanche li nga fi def ci guddik dimanche gi lañ koy jébbal yonent bi diggante dimanche altine talaata àllarba ba alxames comme tey ci guddi gi ci lañ koy jébbal yonent bi kon jullit bi ñaari fan la am ci semaine bi yoo xam ni ci lañuy wan yonent bi ay jëfam te loolu sama sëriñ Seydil Hadji malik moo ko bind te man lu Seydil Hadji Malick bind d'accord naa noo commenté ci mbindum Alaaji Malick lu Seydil Hadji Malick wax wala mu bind ko noo commenté d'accord naa te loolu sama sëriñ moo ko bind Alaaji Malick moo wax ni tubaanu amaluna yowmal xamiisi lahu wa yowmu lisnayni fi istigfaari zil jurami Seydil Malik nee na bu ñuy jébbal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam suñu jëf yi nee na ñi ngi ko koy jébbal alxames ci guddi ak guddik altine te mooy dimaas ci ngoon nee na bu yonent bi jotee document yi nag ba téye ko ubbi ko ku ne mu vérifier li nga jëf ci fan yi nee na su boobaa fistixfaari zul jurami nee na yonent bi day xool ñi am bàkkaar mu leen di plaidel ci kanamu yàlla naan dossier bi rus ma ci teg ci sa tànk allahu akbar nee na Seyduna Muhammad dafay jël dossier bi jox ko yàlla fisti fistixfaari jurami nee na yonent bi day plaidel borom bàkkaar yi seeni bàkkaar danaan yàlla Pape sàmba lii mu def njuumtee tax mu def ko waaye ku la bëgg la yàlla waaye mën mii di sa yonent it ku ma sopp la ma bëggoon rek nga dimbali ma rek baal ko yàlla ni jéggal naa ko ci sa daraja yow yonent bi mu ne kon yonent bi mooy peledeel bàkkaar yi borom bàkkaar yi ki leen di peledeel seen bàkkaar yi mooy sayduna muhammad ndax jara iruna tumha bi jaahi muhammadin mooy cause bi de su amul woon duñ effacer kenn seeni bàkkaar moom yonent bi kon nit ki war nay xam li muy jëf intervention bu bari nag bu yàggee da ngay soof fii ci àddina rekk nit bëggul nga koy ñaanloo intervention fu mu toll moo taxit léeg-léeg nga góor góorgóorlu ba bu yonent bi jotee ci sa dossier xam ni góorgóorlu nga waaye chaque semaine ñu ñaanal la intervention su yàggee yonent bi ne kii moo ko tey muy guddi gu am solo moom guddi àjjuma guddi la goo xam ni guddi gu màgg la ndax dafa dend ak bis bu màgg duggante ak moom muy bisu àjjuma àjjuma nag bis la boo xam ni dañuy wax ni bu dee bis yi am nañu sang àjjuma mooy sangu bis yi waaw su dee bis yi am na nañu sang vendredi mooy sangu bis yi mooy VIP bi moom vendredi moo taxit ci la yàlla di tukkal àddina adduna bi bis buy tukki bisu vendredi lay doon moo tax saa yoo xëyee muy lundi mardi mercredi jàppal ni jàmmay xew ak jeudi yàlla du tukkal àddina mukk lu dul ajjuma daa jot bisu ajjuma ci la àddina di tukki moo tax yeneen jours yi moom sa xel mën mën naa dal waaye tous les vendredis jàppal ni yaa ngi ci risque vendredi bu jot jàppal ni àddina mën naa tukki tey waaw vendredi bu jot jàppal ni àddina mën naa tukki tey ndeysaan jaamu yàlla rek ay dëgg billahi allazi laa ilaha illa képp ku la wax ne bul jaamu yàlla soo deewee maa lay yóbbu aljanna waxul dëgg loolu nañ ko xam yàlla bindul aljanam ji ak coono yi mu ci daj bind mbindeef yi ak coono bi mu ci daj am ñàkk fayda gu doy ni moom sunu boroom bu yowmal qiyaamee da ngay taxaw buntu aljanna naan ku la neex duggal te tegoo ko ci losik loolu yàlla du ko def ku jaamuwul yàlla da ngay perte ay lu ma neex laay def sama sëriñ may yóbbu aljanna mais loolu loolu loolu yow mi koy wax sax amoo xel te benn sëriñ nag bindul bindul ci senegaal gii benn sëriñ bindul ni may yóbbu sama taalibe aljana benn sëriñ bindul texte ne man diw may yóbbu ëllëg sama taalibe aljana amul bu dee Seydil Xaaji Malik mën naa koo layal waxu ko bu dee Sëriñ Tuubaa mën naa sukkandiku ci xasiida bu mu bind layal ko ci ni moom Cheikhul Xadim waxul kenn maa la yóbbu àjjana parce que bu ni woon may yóbbu nit aljanna moom Serigne Touba du bind ni laa tashtari dunya bi uxra yaa fata man baa nuuran bi duja fa sa yandamu su diggee woon aljanna du ko wax Seydil Xaaji Malik su diggee woon aljanna du bind yaa man yuriidu jinaanal xuldi yaskunuha faqad diman talabal miftaaxi tuxtarami bu alaaji malik digle woon aljanna du ko bind bu sëriñ tuuba digge woon aljanna du wax laa tastari dunia bi oxra yaa aljanna ku jaamuwul yàlla doo fa dugg ah yow tam yàlla du rido may ga yàlla du rido may ga wax naa la ko ba tàyyi ñëw fel dugg yàlla du rido may ga sénégalais gën a dal xel lu ma la mënta wax toog croiser balaa doo jaamu yàlla doo julli doo woor doo natt azaka di def lu bon njaaloo guddeeg bëccëg naan sàngara sax ci mbon ne bu ëllëgee sama sëriñ a may yóbbu aljanna ban sëriñ la ban sëriñ moo fi jël garanti jël nit ko bon ku fettirlu ku bëggul yàlla sëriñ boobu ni moo la yóbbu aljana ban sëriñ la man de sëriñ yi ma xam ci Sénégal gépp jaamu yàlla lañ digle bëgg yonent bi topp yàlla bëgg Seyduna Muhammad